salaamaaleykum mbokk internet yu Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar di am mbégte di ànd ak yenn saa su nekk ci seen entretien spécial nag tey ñu koy sekk ak euh, benn femme bu ñu naan Satou Satou moom borom këram euh, di du njàkkatin moom nag euh, bokk ñi nga xamante ne si yoon daf leen teg loxo ci li nga xamante ne si nag moom ci wàllum manifestation yi bokk ñi nga xamante ne si nag moom lañ arrêté woon moom nag ñu wax a sekk ak moom waxtaan ci lu jëm ci arrestation bu borom këram Satou nuyu maa leen di fay maa si jàmm bu baax. Satou euh, ndax mën nga ñu wax kan mooy sa borom kër ak arrestation bi naka la demee ak nu tudd. waa moo Modou Ndiaye Ketine la tudd suñu ngi ko jàpp depuis am na 11 mois. waaw mu ma bàyyoon ma nekk en état 6 mois ba tey moom mu ngi ci prison bi ba tey muy ñu tey ci prison bi metti woon na loolu. biñ ko jàppee léegi def na 11 mois kon xanaa ci weexu mars bi lañ ko jàpp. waa ci mars bi lañ ko jàpp. ban ko jàppee lan moo waral ñu jàpp ko. non Pastef la bokk ci la bokk waa ñu ngi ko jàppoon ay vingt et une heures yooyu dama tëdd rek mu woo ma fekk muy central ñoo ko jàpp mu wax man dañ ko jàpp mais ci affaire de manifester yi la daal. ci Pastef la bokk mais jour bi ñu ko jàppee nekkul woon si manifestation lendemain manifester bi la ay vingt et une yooyu. waaw waaw. daa bokkoon seen groupe WhatsApp Pastef yi wala. waa ci Pastef la moom waa si la waaw. tey naka nga dundee loolu ndax yaa ngi ma wax ni que daf la fekk nga nekk en état de grossesse. waaw dafa fekkoon ma nekk en état mais métti woon na lool franchement métti woon na trop nga nekk en état di liggéey ñu téye sa borom kër mu war la taxawu métti woon na trop vraiment métti woon na trop. tey jii Euh, sa doom bi naka ngay nga koy xawlee wala moom ban gis-gis lay am tey ji moom mu nekk prison doomam euh, juddu ci ginnaaw waa metti na daf dama koy yóbbu fee visite daf koy gis verre mais teewu ko daal metti na trop parce que ku bëgg doom la bu demee boo doomam toll nii te mënu ko te mënu ko kii metti na moom am na huit mois mu ci huit mois waaw. tey soo demee prison ba di ko seeti tey ban anam nga koy fekkee. dafa ñuy wax ne mu ngi si jàmm xam nga ñoom tamit duñu dalal sa xel rek leen fekk loolu laaj ñu ngi naan ñu ngi si jàmm affaire yooyu daal waaw. waaw xam nga prison bi moom ñoom ñëpp mooy loolu ñoom ñëpp a ngi fa ñoom ñëpp ay dund même stress bi ñoom ay dund métit métti na daal vraiment waa ñoom ñëpp ñoo dund kii bi daal mais teewul boo demee ndeysaan dañu goree dañu lay dalal ñu si jàmm affaire yooyu di la laaj yow yaa ngi si jàmm comme si daal oui na daal vraiment. ndax tey am nga ñu lay ñu jàppale di la soutenir ndax nag nga nekk jigéen nekk ndaw dugg ci sëy sa boroom kër caabi féete ko ginnaaw nga am mu doom ci ginnaawam nga tey waa métti na mais am naa ñu may jàppale kii nga gis doom baayam la vraiment ñoom ñëpp jàpp nañ si ay magam xaritam yi bàyyiwuñu ma daal maa ngi si jàmm bu baax ñu ngi jàppale bu vraiment hmm, ñoom ñëpp ñu ngi si jàpp moom famille mi ñoom ñëpp daal ama seen fay vraiment ama seen fay. tey est-ce que du nga tëdd guddi sa dem sa borom kër ci situation bi muy dundoo nga jooy. non dina si dem vraiment parce que dafa nekkoon li mu nekk ci man mënu ma ko expliquer sax wallaay dafa nekk ku baax ku bëgg famille ku ma bëggee rëm ma lu mu am bokkook man xam nga tey kooku buñ ko teewee dina am lu mu joué ci yow vraiment doom la am lu mu joué ci man metti na daal vraiment mais maa ngi sant yàlla maa ngi liggéey wa euh, liggéeyu kër laay liggéey nag hmm. liggéeyu kër laay liggéey waaw ci laay moom laay suturloo ci liggéey kër laa nekkee moom lay def fii laay wàcc ñu luye fii di wàcc fii waaw. tey ana taxawaay bi nga xamante ne si euh, waa collectif des familles détenues tey ndax ban ban taxawaay lañu am si nga xamante ne si ñoo di famille détenue. waaw ah, famille détenue nag dafa nekk kii boo xamante ne nii vraiment xel képp ku ñu jàpp sa mbokk. mboolem dootu ni ku ci nekk daal sa xel day daal franchement ku ci mel ni maman Lucie ñoom kilifa yu tonton Dramé ñoom yaay daal ay yeneen ñoo xam ne boo koy lim sax du jeex ñu am taxawaay ñu am yermande si ñun di dalal vraiment métti na mais ñu ngi ci daal am amuñu seen fay amuñu seen fay vraiment képp ku am na xar fa ngay dugg képp ku nekk lu nekk te dañ lay taxawaale sax comme que da yore doom affaire yooyu doo mën lu jóg rek nga kii mais ñoom ñoo lay taxawaat ci lu nekk am amuñu seen fay ñoom ñëpp vraiment. Hmm. ak li nga bëgg ndax sa jëkkër boobu ba tey depuis 11 mois mu nekk ci prison bi ndax tey yaakaar nga ne moom dina bokk ci ñi nga xam moom ñoom lañ libéré euh, ci libération yi ñu commencé. waa am nañ ci yaakaar nag vraiment am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que li leen fa tee réew ñu nit defuñu kii dañu bëgg seenam réew rek. waa dañu gën bëgg seenam réew rek te luñ doon vraiment moo leen fa tee kon am nañ yaakaar ne bu ñu libéré détenus ñoom ñëpp ci lañ war a bokk parce que defuñu lu tax ñu war faa mën te tëdd 11 mois seen famille son war a kii li leen war yëpp ñu waroon taxaw seen soxna yi ñu nekk en état ñu war leen a taxaw ba nii tey suba ngay xalaat naan tey mu gën suba mu gën affaire yooyu ba 11 mois métti na. waa metti na trop gisoo sa jëkkër mu war la taxawu affaire yooyu xam mais famille bi bàyyiwuñu nag ñu ngi si jàmm bu baax famille bi kii nga gis magam la keroog bi ñu ko téyee fii wallaahi moom moomu gën a sonn sax ngay tëdd bu guddi dégg ko muy jooy sax wallaahi billaahi voilà ginnaaw soxnaam bi nga xam ne moom lañ doon waxtaanal sànq mu indi ay relation ndax nag mu ngi xamal ni bi ñu téye borom këram moom dafa nekkoon en état bu 6 mois ki nga xamante ne si moo di doom bi juddu te ki nga xamante ne si nag moo di papa moom jotu ko gis ndax nag fekk na ko yoon daal di koy teg loxo tey ñu daal di toogal ak ki nga xamante ne si nag moo di sëram. maa ngi leen di fay maa ngi si jàmm sama rakk bi waaw metti woon na torop ndax jour bi ma jabaram woowee ne ma dañoo téye maam góor Modou Njarkatin man ne boobu moom xaw na maa tàggoog sama sago sax mu wàcc ñëw di jooy man tamit fii laa daanu di jooy man mi ko war a defal mënatumaa téye sama bopp ndax loo xamut xamoo ko sama rak bu baax ci man bu gënoon ci man ñoo bokk papa de waaye daa mel ne ñoo bokk ndey ak baay sori woon lool nag ci man bi ma yegee lii moom jële na ma kaw metti na lool waaw waaye du tey ñu delluwaat ci sunu borom te xam ne ab natu moom ku ne lay daal du dal ci kenn nit waaw. ci ay kàddu mu ngi may wax ni Pastef la bokk tey ñu bëri ñu bokk ci Pastef ñu daal leen di arrêté yéen naka ngeen di jàngatee loolu. metti na ndax sax soxnaam si ci man la nekk bi mu ñëwee bi mu jógee dëkk ba ñëw liggéey si Dakar ci man la nekk bi mu ñëwee. mu jël mu jël ci omb yàggul dara ñu tey borom këram muy daan dooleem nag ordonnance yi lool ñuy daanuy jog mu doon ku am jom nag jëkk jabaram ku muñ ku doyloo yàlla sunu borom billaahi xale bi judd na ci ginnaawam ñu nekkaat ci hôpital yi ak ordonnance yi gisuñu kenn waa wax dëgg jàmbaar la moom mi lu mu liggéey suba ba ca ngoon jot su ma génnee sax sama xaalis ne ko dama lay dimbali mu ne ma bàjjan déedéet jaaru ko yor naa xaalis ma am lu ma métti lool. bu am benn 11 jours muy dem fale central avant ñu koy jàllale 100 m mu ne ma kaa ñu an ma ne ko acca ñu dem man xam naa sama bopp xam naa ni ma mel mais bi ma demee ci police bi avant may egg si police bi laa tàggoog sama sago boobu nekkatuma nit mu ngi nii sama yaram bi dama koo gaj ba mu deretal ndax xam naa ne deret ji foor na te mënatumaa teye sama bopp. moom mi sax gédd naa ko ma ne ko satu boo ñëwee ci ñi nga xamante ne ñooy ñooy homme de tenue yi li ñu bëgg rek ngay def buñ la nee tegal fee yére yi tegal rek garaawul ñu teg te dem amul benn problème bi satu duggee ci biir euh, police bi man damaa génn ndax mënatuma teye sama bopp leer na ko moom mi ndax su ma fa fayagoon rek barke rasulillahi dinaa doon ab niw xam naa cofeel gi ma am ci sama rak jooyu ma mais nekkatuma nit man xam naa ne nekkatuma nit mais bi ñu génnee ci laa yàlla sunu borom waaw metti na nag ñu ngi ñaan yàlla sunu borom indiwaat ko ci sunuy loxo ak képp ku ñu ci mën a dimbali te yàlla rek tax waaw loolu rek lañuy ñaan yàlla waaw ndax imagine sa nga dem ñu jàpp la sa soxna nekk fii di daan dooleem dem ba om ay ordonnance war ñu ñu dem bu nga xamante yàlla mu ngi koy muccal ordonnance yi gën a metti loolu dara gënu koo metti gisuñu kenn gisuñu kenn te jëkkëram da doon faraatu rek waaw nekkul woon ci place bu siire da doon faraatu rek wax dëgg yàlla dimbale nañu ndax boo gémee yàlla doon gor yàlla da lay suturaal saa su ne waaw waaye metti na lool nag. soo xoolee xale bi tey ban réaction ngay am. sama xol day tooy xale bi donc su ma ko yëkkatee sama xol day tooy moom mi sax xam na ko ndax moom mi su may jooy sax daf may day taxaw di ma reetaan moom satu mi. naan naa bañ la koy dundee satu metti na metti na ci moom lool saa yu demee visite ba ñëw dama naan ko satu ana maam gis nga ko Modou mu ne ma waaw. xam nga ñun maam la ñu koy wax waaye du Njarkatin moo nekk ci carte d'identité ma ne ko gis nga ko mu ne ma waaw mbaa ma ne ko mbaa deful dara mu ne ma deful dara ma ne ko lu mu la wax waxagul day génn mu ne ma déedéet waxul ma dara ma ne ko ah mu ne ma ma ne ko ah yàlla baax na saa yu ma xëyee amul jour bu ma doon tapé numéro am pour woo ko ndax dinaa ko jot wala du ma ko jot. waaw chaque jour ma essayé numéro am chaque jour damay envoyé vocal wala ma tampé numéro am woo ndax dinaa ko jot wala du ma ko jot ñuy dundee yaakaar sax su ne saa yu ne. manaan satu nañu muñ xaj na dina génn amul jour ba ma doon julli nag te ñaanu ma pour mu ñëwaat ci sunuy loxo ak mboolem ñoom fa nekkal ñëpp nag son nañu ñëpp ñëpp a son du ñun rek ndax dalul ci ñun rek ndax booy seet ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bàkkan kenn gënu leen a mitile waaw waaye nag boo ci amee sa doom muy dun da ngay sant yàlla waat lépp ci sunu borom te xam ne coobereel sunu boroom la ndax booy xool ñee fa nekk ñee ñëpp pour xeexal seen réew moo tax ñu dëju fa mais la leen fa dëj ah, du seen ñàkk jom du seen dara dañoo bëgg seenam réew moo tax ñu toog fa tey jii waaw ndax képp ku bëgg sam réew di nga xool lu jëmale sam réew lëg mais doo xool lu koy deloo ginnaaw loolu rek moo ñu ci dugal. loolu kese libération yi commencé ñu commencé di beexee détenu yi yéen heure bu ngeen xëyee seen doom bokk gu ci heure bu ngeen xëyee ngeen jug dem buntu Rebeuss di xaar. barki dem alxames rek a ci mujj. ci guddi bi ñu ne sama benn xarit woo ma ne ma ami ma ne ko naam mu ne ma sa rak bi génna na ma ne ko génnagul de mu ne ma am na ñu ñuy livrer de ma ne ko maa ngi patarsin di jaay fonde su ma wàccee dinaa ñëw xool ko ba xam ba ma wàccee laa woo soxnaam si fekk mu dem benn ceet ma ne ko am na ñu ñuy livrer mais dinaa dinaa dem ma xool ba xam am na ñu ñuy génne tey maa ngi dem 100 mètres ci bunt bi taxaw mais damaa taxaw a taxaw a taxaw ba son mais gisuma kenn gisuma maam góor ba tey génneeguñu ko te moom yàgg na fa lool am na ñoo xam ne tey jii maam maam moo leen fa jiitu moo du njarkatin moo leen fa jiitu waaye ba tey mënagut a génn ci bi may dem ma am yaakaar foog ne tey jii dinaa gis sama rak ba laxasu ko ba ñëw ba mu sangu dootal ko ndox togal ko mu lekk ba suur barke Serigne Touba loolu rek la yaakaaroon mais maa ngi ñaan ci doomu aadama yi ak ci état ñu dimbali ñu te yàlla rek tax nag ñu dimbali ñu dimbali ci Modou Njarkatin lu ci waay mon rek nga dimbali ñu te yàlla rek tax soxnaam sonn na am na doom ci ginnaawam metti na lool ordonnance yi metti woon na lool mais ñu ngi sant yàlla bu wér a weer a wér yàlla ki mu bëgg rek lay tegab nettu waaw. tey boo toogee dégg ñu dañ leen di torturer di leen dóor di leen maltraité lekk yi leen di jox baaxul tey sa xool fan la. du ma bëgg a lekk du ma bëgg lekk lekk ba suur sax mënatuma ko du ma bëgg a lekk tey jii wër na yàlla yàlla rek a tax may wax su ma ndekkee ba suur du ma añ ndax da ngay xool ña fa nekk tey xamoo ndax ñu ngi lekk wala lekkuñu. wala lekk gi demee na noonu wala demewul noonu yàlla rek a xam du dëgg waaw moo tax tamit fii mu ne coono coono ga ñu fa nekke mét bu ma ko déggee rek daf may metti bu fekkee am na yit wax dëgg metti na torop waaw. sama kàddu gu mujj mooy maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi ndax li yàggoon nañu koo bëgg te mënuñu koo am waa ñu ngi leen di sant di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay saa su ne te di leen ñaanal jàmm ak tawféex waaw. di ñaanal ñëpp jàmm nag tey ñaan ci état lay war a sóoli sunu mbokk yi nekk ci kaso gi ngir yàlla ak yonent bi mu dimbali ñu oyofal nettu bi jàpp ci te yàlla rek a tax mu bàyyi gaa yi ñu génn waaw defal ñu ñu ñaaw waxuñu lu ñaaw wax dëgg nañu dimbli gune yi ñu génn fi ñu nekk metti na tey loolu rek laay ñaan état waaw maa ngi leen di san di leen gërëm te di leen ñaanal gudd fan ak wér gi yaram seen am na juróom-ñetti weer waaw am na juróom weer metti na lool. kuus ak yëpp xam nga yaama ma a xam jigéen nga xam nga li jigéen ñi daj ci àdduna ak Dakar gu metti gi ñu nekk nii gis nga fi fi ñu nekk nii bi ngeen di ñëw ni mu méttee waaw wax dëgg metti na lool nag waaye ñu ngi sant yàlla bu wér a wér ñu ngi sant yàlla ndax ab jaam fu mu toll danga ngaa war a sant yàlla sunu borom waaw ndax tey jii ña ko fekkewut ñu anañu ñun ñi fi des nag dañuy sant yàlla te di leen ñaanal ñoom ña dem waaw waa kay jërëjëf waay ñu leen di sant di leen gërëm waa kay jërëjëf. Euh, voilà mbokk internet yi euh, dégg na waxtaan bi nga xam ne daal nañ koy sekk ak Sanu nekk soxna ci ki nga xamante ne si Modou Modou Diack Tine mi ñu daal di arrêté woon depuis rek euh, ci weeru mars 2000. 23 euh, euh, ba tey euh, moom nag daanaka mu def ci prison bi lu toll ci 11 mois dégg ngeen sànq ci li nga xam ne si nag moom la wax biñ ko arrêté dafa fekkoon moom soxnaam mu nekk en état jamono ji ki nga xam ne nag moo di bébé bi daanaka moom daal nay am lu toll ci 8 mois ki nga xam ne nag moo di papaay xale bi ba tey nag mu ci loxo yoon mu nekk rek situation bu metti li nga xam ne nag mooy seen bëgg-bëgg mooy rek ñu daal di libéré ki nga xamante ne si moo di Modou libéré tamit yi nga xamante ne si nag nag ñoo di détenu euh, détenu yi nga xam ne jàpp nañ leen ci manifestation depuis boobu ba tey moom satu mu ngi toog di mu muñal ki nga xamante ne si moo di borom këram tee njabootam di ko ñaan yal na ko yàlla may xolu mu ci ki xam ne moo di borom këram ñu daal di koy libéré ci ni mu gën a gaawee di leen jox dig daje beneen yoon Serigne Cheikh Konte ñëpp ràññee ko ci réew mi muy le grand marabout traditionnel nga xam ni nag fajum cosaan yëfam la réew mi dañ ko cee ràññee xam ko ci muy faj nag di dimbali doomu aadama yi ci xam-xam bi ko yàlla seddee nga xam ni yàlla mooy maye yàlla daal di nag yëkkati xam-xam daal di koy may mu ci dimbali doomu aadama yi lu baree baree baree baree bare ba réew mi yëpp xam ko feebar bu la jaaxal lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg boo jëflanteeg moom feebar bari bi ak lu ko mën a sabab dala koy dindil ba mu set wicc ci sa yaram li si xaar gi nag ay la muy gis nga ñëw toog mu wax la sa démb wax la sa tey wax la sa ëllëg jàppale la digal la ay sarax leeralal la sa yoon kenn du sëriñ Cheikh Konte dina la jox ay cangat yu baax dina la gunge dina la ubbil sa wërsëg dina la defal kaaraange taxawu la woo leen ko ma nga nekk HLM 1 ci numéro bii di 78 397 65 93 mbokk yi sëriñ Cheikh Konte konte ngi noonu dimbali jaam yi dong la fi nekk